sama gars maa ngi leen nuy ci loolu nekk maa ngi leen ci jàmm tey nag ñu ñëw ci programme mu comment déposer Orange Money sur la Xbet mobile Sénégal. léegi dafa am benn problème xam ne moom moo xew ci biir Xbet bi maanaam am ñoo xam ne dañuy bëgg a déposer Orange Money bu ñu ñëwee duñu fekk Orange Money duñu fekk Paydunia léegi Orange Money Paydunia dañoo amoon ay problème ci biir moom la gars yi doon réglé moo tax boo ñëwee doo boo ñëwee fii ñuy déposer Orange boo ñëwee dafa lay jox ñett yi nga xam ne moom mooy dox fii nii Sénégal ndax application boo koy ubbi dalay wan na la ban kii nga nekk nga def ko muy Sénégal léegi yi xam ne moom moo fi dox moom la moom yi nga xam ne moom moo fi dox moom la lay tegal ci kaw boo ñëwee fi da nga fi fekk application euh, kii nga fi fekk bokk euh, visa nga fi fekk ak Mastercard ak Free Money te moom xam nga ni doxul fen dañ ko cee def noonu rek léegi nag xaaral mu recharge dugg ñu wan ko Laissez, laissez. mi ngi nii carte mi ngi money léegi nag bu fekkee da nga bëgg dépp orange foo man di toll pour dépp orange money ñëw fii google chrome boo ñëwee ci google chrome si benn baa ngi si benn mobile ngay bind moo ci kaw boo ñëwee nga def connecté boo ñëwee fi ñu connecté boo ñëwee fi ñu connecté dan la wax ne la ndax da ngaa bëgg a dépôt sa orange moom moo nekk ne ci kaw nga laal dépôt fii moom maanaam euh, da autorisation yi maanaam fii nii moom fi la am maanaam autorisation yi ne may pour nga mën a dépôt maanaam fii application orange money beeg yëpp dañ fi nekk waaw mi ngi nii visa carte visa euh, carte euh, marché ba bàyyi noonu ak Free Money ne orange bi moo nekk nii léegi boo ñëwee ci orange money bi mën la ñaata ngay jënd. léegi 400 man sama compte nag da lay nekk ci dama leen expliqué rek léegi boo ñëwee gis nga ko moo nekk ni nga def numéro téléphone bi def dièse 144 dièse 391 étoile daal def sa code secret daal def dièse léegi def fi numéro téléphone bi daal def code boobu mu la yóbbante sama gars yi noonu la ñuy orange money bi yéen ñi xam ni ngeen soxla orange money bi commande nag ngay dépôt orange money moo nekk noonu da ngay ñëw google bi rek n enregistré la ko da nga jàkkaarloog dépôt bi moo nekk ni ci kaw mi ngi nii noonu la nii la ñuy dépp Orange